wax ne est-ce que élection dina am. Kader pose toujours cette problématique. man ci ñi toog fii sax di ko wax ne ko impensable mais en réalité. mi ngi bëgg a yey soo xoolee de plus en plus. li nga xam ne mooy xew depuis un certain temps. Hmm. soo ko analyser da ngay jàpp ne tey ñi nga xam ne ñoo fi nekk. bu ñu organiser élection à date due. parce que bu fekkente ne dañuy jëm ci élection alors que les règles du jeu de plus en plus dañuy gis ne dañ koy faussé dema dema dema dem ba sax yenn yi ku mel ni professeur Mary Teuw Niane dana lii fi nekk maa tey la du leneen parce que mooy damay def li nga xam moo ma neex en réalité loolu moom lañu fi gis parce que man mosuma gis une décision de justice génn une administration nga xam ne dafa war a soumettre à la loi taxaw elle ne du ko du ne ne il ne va pas se soumettre. Hmm. mooy affaire DG bi ñuy wax ak l'ordonnance du juge de Ziguinchor Sabassy Faye boobu ba léegi juge bi dañ ko sax néewal doole man ça, c'est la justice sénégalaise moom la néewal parce que quand une décision de justice sort je crois que dafay concerner toute la magistrature toute la justice sénégalaise donc si vous demee ba dañ appliquer finalement ce n'est pas le juge de Ziguinchor qu'on affaiblit mais c'est la justice dans son essence et dans son ensemble mom lañuy mom affaiblir. Mm. te dégguma nag ñi nga xamante ne ils sont au sommet de la pyramide moy kangam yi c'est-à-dire vraiment les magistrats deuguma ba légui ñu wax ci lu jëm ci jëm mm. donc déjà ça c'est un fait ñu waxat lolu le président de la république xëy jël waa Sénat yeb dakh leen il est vrai que ce mandat arrivé à expiration. mais bañ ko waree def defuñu ko cest à que dafa am loo xam ni nit bu fekkente ne ay texte dafa wax ne bu seen mandat jeexee te amuñu sax war ñu am prolongation fa mu yem c'est-à-dire nañ leen fa génne defar c'est-à-dire wutaat yeneen sénégale parce que compétence yi bëri na fi président de la li kaaw Doudou Ndir ñun wax nañ ci waxaat ci waxaat ci. oui il ne l'a pas mais quand Doudou Ndir ay eu un comportement boo xam ni nii <coughs> méngoowul ak li nga xam ne moom la waa DG yi def. président bi xëy bale yëpp te xam nga liñ naan xam ma li mu dajee moo tax ñuy wax loolu mais. tombé la waral ay gaaf ñëpp dañuy jàpp ne. <laughs> Eh. su fekkente ne DGE moom dafa wax waa DGE jox leen ay fiche de parrainage Ousmane Sonko président bi xëy dàq leen dañuy jàpp ne wax jooju président cest à comportement boobu neexu leen te nit ñi noonu lañ ko analyser mais li ci gën doy waar. mooy non seulement dàq nañ leen. Mm-hmm. mais ñi nga xamante ne ñooñu lañ fa teg dafa am ñoo xamante ni c'est des nominations ça souffre d'illégalité. illégalité oui. <coughs> parce que su fekkee ne y a un principe de neutralité et d'impartialité boo xam moom moo war a guider c'est-à-dire le choix même des gens de la Sénat dañu gis ne d'abord maa aw fa euh, Cheikh Fall boobu benn. Cheikh Awa euh, il est de la paire. Mm-hmm. deuxièmement aussi euh, le Serigne Ndiaye là Serigne Amadou Ndiaye aussi aussi il est de la paire c'est un responsable politique en bosse donc ñooñu déjà dañu connoté wu. quand même ki nga xam ne dafa connoté wu ba paré te loi bi amna lu ci wax. non non xamul tax ci ci ñu a composer équipe bi nga xamné ne. ñoo xam nga xam nga Sénat ñoy arbitrer. mais yow arbitre mënul far ba pare c'est pas possible. pas être jugé parti kenen ki nga xam aussi au même moment mi ngi conseil constitutionnel ba paré ñu indiwaat encore Sénat lol c'est un problème parce que même su fekkee que ñenn ñi naan texte yi waxu ci dara mais non attention dama dans l'esprit, mi ngi mel ni tey kon loolu bu fekkente ne nit ñi bàyyi nañ mu c'est-à-dire que demain président su ko neexee mu jël sept sages yu Sénat euh, yu conseil constitutionnel yëpp. Mm. yóbbu leen Sénat ne far euh, teg C'est fa. un problème alors que conseil constitutionnel faut aussi arbitrer parce que dina toll foo xam ne Sénat rabattre au niveau du conseil constitutionnel. mais loolu c'est encore un problème te li ñu doon wax naan le protocole additionnel de la cda c'est-à-dire sur la bonne gouvernance daf à six mois des élections waruñu changer les règle du jeu boo xamante ne ni amul consensus au niveau des acteurs mais quand on change des membres de la Sénat ça fait partie des règles du jeu Et le aussi président bi a fait li nga xamante ne finalement les gens vont se dire que la loi n'existe plus mais ce qui existe c'est li nga le président moom et nous, nous avons fait ce ko jàppee moo en réalité comme que de jour en jour dañu irrégularités, une irrégularité yi ñu ngi tegaloo di et que les gens aussi maintenant font fi même à des décisions de justice c'est un problème parce que vous savez même ce qui s'est passé euh, à la cour de justice de la CEDEAO oui. quand l'agent judiciaire de l'État va jusqu'à Abuja pour voir, ne nañu reporter parce que moom dafa a un problème internet ak électricité moi je crois que nous nga gérer internet bi électricité bi war oui Mm-hmm. Parce que ça, c'est un problème de l'image du Sénégal qui se pose. Lolo, ça veut dire quoi Quand donc des investisseurs vont se dire que donc le Sénégal ça internet mënuñu ko am bu baax mënuñu am sax en centre ville mënuñu fa sax am ville ça c'est un problème ou bien mm-hmm. lui il vit dans un monde particulier où il n'y a pas d'internet il a pas d'électricité hmm. mais nous, alhamdoulilah, électricité est chère, mais nous avons de l'électricité <laughs> euh, internet est cher mais quand même nous avons de l'internet en abondance hmm. donc nous avons fait le fan au point que wala fan lay au point que tout ça nous donne beaucoup au niveau de donc ça veut dire que tout simplement finalement tu vas te poser même des questions est-ce que réellement ils veulent réunir les conditions pour aller vers une élection, paisible parce que yi parce que yi ñuy def nii yëpp dafay indi problème. te gis nga bi mu amee dans les années 98, temps FRTE mooy Front pour la transparence et la régularité des des des élections te Mamadou Diop Decroix jiite ko woon bi mu amee avec le général les gens ont battu la macadam je me rappelle Samir Abou Risk yàlla naka ko yàlla yërëm moom à l'époque gaañ nañ ko ci door nañ ko ci ba gaañ ko. les gens avaient organisé une marche c'est-à-dire pour contester. L'illégalité, de la nomination de du général Jean, hmm. C'est c'est l'URD de Djiboka ñom sen walu bob recours au niveau de devant le conseil d'État, cest à dire pour wane né sa nomination quand même a été irrégulière à la veille de la décision c'était le 17 juillet de 98 à la veille de la décision que le général Jean a démissionné parce que xamna né conseil d'État ci bopam jox dëgg waa FRDE mais loolu nag tey moo fi manqué mooy c'est yow loolu nga posé comme problème. c'est-à-dire que gisuñu cette mobilisation de l'opposition par ah, rapport à voilà <laughs> donc par rapport à ce qui se passe. donc finalement. li nga xamante ne ñun moom la ñuy gis élection yi. Hmm. est-ce que réellement toutes les conditions. sont en train d'être réunies pour aller vers de véritables élections. C'est un problème. Maintenant, hmm. les candidatures, nous di éliminés, mais de tout temps, le président, c'est ce qu'il a fait depuis qu'il est là. On a éliminé Karim Wada des élections, on a éliminé Khalifa Sall. Aujourd'hui, c'est le tour de son cas. d'ailleurs, hmm. jusqu'à aujourd'hui, on ne peut même pas parler du cas de Karim Wada. Quel l'air le fait Jusqu'à aujourd'hui, ba Karim Wade dina fay du fay dina fay fay na du fay et cetera ba ngi problématique le problème de la double nationalité de de Karim Wade ba aussi il ngi donc cela veut dire quoi ça veut dire que ce sont des armées qui nga pouvoir bi su ko neexee bu subaa mu activer ko pour combattre encore la candidature de Karim Wade je ne lui souhaite pas je veux des élections inclusives mais comme que boobu ba léegi nit ñi ñu ngi ne tekk waxuñu dara ah nañ dem de façon ce qui est sûr et certain mooy ce qui est en train d'être de de de en tout cas d'arriver à Sonko compte... Mhm. ci nit ñi bàyyi xel bu baax a baax a mhm, mhm, parce que les gens pensent que parce que c'est Sonko ñenn ñi ils vont laisser faire pensant tout simplement que même Sonko su bokkul ci élection aussi. peut-être bien ils s'en réjouissent. non xool ne dama bëgg a dalal xel ne <laughs> même Sonko tey. par extraordinaire bu bokkul woon ci élection yi. nañu xam loxo Pastef du génn ci élection yi. très bien loolu lenn. loolu c'est clair. alors. Euh, Ibrahim Pouy, euh, euh, sur la question, le régime n'est-il pas dans la logique d'éliminer euh, euh tous ceux qui représente euh, une menace pour lui et euh, wax nañu fi léegi Karim Wade euh, Khalifa Sall aujourd'hui Ousmane Sonko nous avons jëm une élection pour nga euh, véritablement nous bari ngi poser la question ci yenn ci ay irrégularité peut-être ñu nekk di gis euh, kenn waxu ci naam dinañ ci ñew surtout du côté de l'opposition ndax mo fas dans notre deuxième thématique mais naka nga jangaté lool et le peuple toujours perdant parce que ñu ñuy éliminer souvent ci euh, langue gi duñu duñu duñu n'importe duñu n'importe qui bon je crois que bu ñu un processus électoral bi. Mmh dañuy tàmbalee d' abord ci constitution bi nga xamante ne moom moo wax ne dañu respecter le calendrier électoral. Mm-hmm. je crois que calendrier électoral bi état du Sénégal mu ngi koy respecté. jusqu'ici oui. jusqu'ici. élection yi mos a am yëpp dem nañ ko ci à date échéance. Mm. bu ñu toppee procédure électorale bi nga xamante ne tey mooy permettre tey ñu dem ci élection bu voté. Mm-hmm. Sénat bi ñuy waxtaanee tey moom mooy kilifa bi nga xam ne moom mooy chargé wu à l'organisation lépp lu jëm ci organisation élection yi ñoom amuñu ci frontière tey ku xool processus bi muy doxe Sénat bi noonu lay doxe ànd ci ak ñoom ànd ci ak processus bi ba yegg si ci moment bi ñuy wax naan DG e am na jafe-jafe ak un candidat déclaré bu ñu rajo ci fichier yi à travers la justice et le ministère de l' intérieur rajo ci fichier nag un candidat mooy génnee la ci fichier électoral bi à travers la direction de l'automatisation du fichier mboolem kuy citoyen Sénégal bu yeewu ci réew mi sa tur sa sant say coordonnées ñu ngi ci fichier ba mu ne daaf moom la yor bu ñu ci génnee rek mooy bokkatoo ci lu jëm ci droit de vote loolu la ñuy wax radier. Mhm. et du Ousmane Sonko kese képp ku xam ne radier nañ la fa rek c'est un nombre seulement Ousmane Sonko da cee gën a siiw nekk un candidat déclaré fës ci mais tey dafa am ordonnance buy jógee ci hiérarchie ndax administration Sénégal hiérarchie la. Mhm. ordonnance bu jógee ci ministère de l'intérieur à travers le ministère de la justice bu jox daaf. ndigal ne ko nañu retiré Ousmane ko ci fichier bi kon retirement bu buñ ko defee. muy radiation à part. Mhm. structure yi ma tudd mooy institution à part yi nga xam ne ñoo ko retiré ci fichier bi. Mhm. amul keneen ku mën a am maqaama. Mhm. jël ay fiche de parrainage que muy sena que muy direction générale des élections. ka muy conseil constitutionnel ak kenn na ci yem amu ci ku ci am maqama jël ay fiches de parrainage jëbb